donc war nañ ko fi teggi booba temps ñaara mën a am solution bu yomb bi mooy mag yi ni comme que loolu lii la yoon wax man maa ngi dem ci li yoon wax loolu dañuy appliquer li yoon wax jéem a génn ci crise bi ñu nekk yaakaaruma ni mag yi mën na def loolu mën na bàyyi man bàyyi pour man yaakaaruma ko yaakaar naa ni même bu conseil constitution bi conseil constitutionnel bi waxee nii lii mu def du yoon du tere mu continuer ci. foo teg yaakaar boobu. daf ko wane dafa am loo xam ni man <laughs> du ma du ma seetkat damay xool nit ñi li ñuy doxale yow mi wax ko léegi. bi juge bi ne nañ inscrire Ousmane Sonko ci liste électorale bi gouvernement bi bañul kan moo bañ du Macky Sall defe nga ne fonctionnaire ministère de l'intérieur ñeme nañ bañ dara loo xam ni Macky santu leen. amuñu ci ndigalam. waaw looloo tax ma wax la ni. lii juge yi di def yëpp ñu def ko ci kaw Ousmane Sonko yëpp ñoom ñu bañ ko wane ni ni bu ëllëgee bu ñu bëggee continuer ci conseil constitutionnel leen lii du yoon dinañ continuer kam d'accord du ma seet kat nag ah. ci seen doxalin waaw ah, ci logique lañ ko teg seen doxalin mhm. waaw léegi su boobaa su boobaa xeexu peuple bi moo fii ne du dara del lu xeexu peuple bi parce que am na nit ñi lu ñuy wax loo xam ne man du ma ko envisager bu mukk mooy pour que armée jël pouvoir fii Sénégal kooku mu mm. envisager wu loolu la ñëpp ragal de waaw ma ne loolu dama ko envisager wul man ndax lan parce que pour man baaxul ci Sénégal baaxul tekkiwul ne mën ta am lu baaxul ci Sénégal bëgguma mu am ci Sénégal d'accord mais lu mën a nekk la suñu waxantee dëgg fi mu toll nii tey parce que li nga fi wax nii dans tous les cas kon problème day am. non mënuma envisager loolu loolu lu ma ko envisager pour sama réew dama ko mënul envisager kooku moom boolewuma ko sax ci samay xalaat waaw. Ah, d'accord dama ko boolewul samay xalaat. d'accord loolu nangul naa la ko. waaw ñi ko boole seen xalaat nag pour man bëgguñu réew. seetlu naa ni Macky Sall xëy na foofu la bëgg jëm ak ñun. da jàpp ne loolu la bëgg. no dama ne xëy na loolu foofu la bëgg jëm ak ñun xëy na loolu ndax am na loo xam ni boo koy def mu wóor na léegi yoon bokkutu ci doole rek ci sis da woo beneen doole bu ëpp sa doole loolu ngay woo loolu tax ma ne xëy na. loolu la bëgg wax ma ne loolu la bëgg dama ne xëy na xëy na waaw d'accord léegi euh, kan nga jàpp ne wala ñan nga jàpp ne ñoo ci mën dara am na ñuy déplorer le silence des chefs religieux est-ce que yaakaar nga ne ñooñu bu ñu waxoon tey taxaw ci xëy na yi mën na leen a rus ñu ñaan ko ko ci njekk naa moom dafa bëgg a njekk man xaw ma yan chef religieux la ñuy waxati ndax euh, chef religieux yi pour man déjà li ñu def lu rëy mooy la kenn jógu ci soutenir li yi def parce que gis am na ay jamono yoo xam ni gis nañ fi ñu jóg di soutenir <laughs> ay chef d'état ci loo xam ni ñëpp xam nañ ni du dëgg mais bi yoon gisaguma benn chef religieux bu jóg ni Macky lii mu def baax na gisaguma ko kon nag pour man déjà am na pas en avant ñaareel bi dégg naa ay porte-parole yu wax clairement que ñoom sëriñ bi ñuy waxal mhm. d'accordul ak report bi loolu itam dégg naa mhm. mais dégg guma kenn ku ne d'accord na ak Macky kon nag ñu ngi ci situation bu baax pour man ñooñu jàpp nga ne bu réew mi réew mi sax fi toll baaxul waaye jàpp nga ne fi mu toll nii luñ ci tegaat ñooñu mën nañ ci dara ba tey pour xam ndax yaakaar. mën ndax ndax mën nañ ci dara. buy di ka am yaakaar naa ni bu ñu waxoon itam Macky du tax mu dellu ci ginnaaw fi mu nekk. rusu leen yaakaaroo ni am na kersa. wala Macky nekkatul ci mbiru rus. Macky ci mbiru survie la nekk bokk naka lay survivre mooy xalaatam fi mu nekk nekkatul ci mbiru rus survie de kuy waaja de moo koy def ah Macky nu muy génne ci lii nga yaakaar naka la ciy génn ah est-ce que du ma la delloo laaj bi ban <coughs> xamu nu mu ciy génne xamu nu mu ciy génne de parce que ñaara am ñu tëj ko kaso mbaa mu rey nit ñu bari ñaar yooyu moo ci am gisoo beneen yoon bu mu ci mën a génne a ah, yoon wi de ma doon lii ma def génn naa ci sa yooyu xoor xaaruma ko ci Macky dialogue bi muy woote foogoon ne aussi porte de sortie la am na ñu commencé wax ne ànd nañ ci dialogue bi ndax xëy na solution mën na faa feeñ. pour man jaloog bi mënul nekk porte de sortie li tax li muy def ba mu koy def def ci boole dialogue bi déjà kon nag moom du porte de sortie. du dëgg. porte de sortie da ngay def dara ba pare. xalaat ni pour ma génn ci foog ma def lii mais lii ba mu koy def la ci boole dialogue bi kon jaloog bi c'est au service ci stratégie bu mu bi mu jël kon lan lay wut ci dialogue bi en réalité ku entériner li ma def lu mu ciy wut la wut yi leneen mooy ne nit ñi ñëw entériner li ma def servir de faire valoir waaw entériner moo tax ma ne la dialogue bi du porte de sortie kon dem wuy ji ci dialogue bi erreur la ah xam nga ku nekk ak sa xalaat mais pour man dialogue bi ni mu ko boolee ci coup mu def boole leen àndale leen wane na ni dialogue bi ci coup bi la bokk waaw d'accord assemblée nationale daq élection yi ba le 15 décembre est-ce que mën nañu envisager xëy na bu yëf yi amee fu mu toll ñu ne kon nañ dem ba 15 décembre. nanguwuñu ko fi mu ne kenn nangu